asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm te defal leen ko barkeb Cheikhul Xadim barke alquran ala kulli xaal woy leen di abonné tey partage bi doy te di ko aimé leen koy waxee saa su nekk rek tey ñu indiwaatal leen njariñ boo xamante ni bii lu am solo la ñu génnee ko ci alquranul karim comme niñ ko baaxoo def saa su nekk di jégalu mbokk yi ak soppe yi ak xarit yi ak fu mën nekk réew mi ak bitim réew di leen ñaanal too tawféexi suñu borom li ma leen waxoon rek laa leen di waxaat di leen partage bi yi te di ko aimé bu baax am na ci solo lool ndax j'aime rek lañ ci gën a soxla waaye surtout partage bi ak abonné bi tey nak ñu gëstuwaatal leen loo xamante ni bii indil leen ko dafay dox ci wàllum kaaraange waaye dafay indi xéewal nit koo xam ne téye na ko saxal ko di ko liggéey jërul muy takk benn gàllaaj jërul muy ragal dara dara dara dara ndax waxi suñ borom la lu mu bëgg ci xewal itam suñ borom dana ko defal adduna ak àllaaxira jëf nag di ci ëpp solo mooy loo saxal incha allahu rabbi mbokk yi comme nu ko waxee rek képp koo xam ne bëgg ngaa seddu say mbir wala nga bëgg xam sa saraxu rawxaan wala sa sarax bi nga xam ni moo lay ubbi walla nga bëgg a xam loo xamante ni bii dafa taq sa yaram wala mbir mooy dugg bëgg ci xam dara incha allahu rabbi wala sëy boo xam ne yaa ngi ci waaje dugg te bëgg xam ba xam mbir yi déggoo ne wala déet wala koo xam ne dafa bëgg ay këyit wala xeetu mel noonu wala lu jëm ci wàllum kaaraange ndambal weñ mi ngi fi lappatàkka mi ngi fi tuli tam mu ngi fi lu ci waay bëgg rek am na incha allahu rabbi waaye dinañ présenté waat sunu jaaro bi nga xam ni mooy doon jaaro boo xam ni garanti la képp koo xam ne takk nga ko un mois te gisoo leen la wax ñu delloo la sa xaalis jaara boobu nag ñu ngi koy liggéeyee soixante quinze mille bokkul ak ba tey bi ñuy liggéeyee quarante cinq mille bi ñuy liggéeyee quarante cinq ba tey mi ngi fi waaye bi ñuy liggéeyee soixante quinze mille moom boobu moom lu nu gëstu ji woon la lu nu jàng ji woon la fu sore sore sore sore jëlee ko ci ñu wér jox ñu ci tegtal yu wér jëfandikoo ko gis ko waaw ki ñu ko jàngal wax ñu ne képp koo koy defal bu la neexee sañ ko koo garanti ala kulli xaal waaye di leen fàttali ni incha allahu rabbi luñ fiy jaaral rek xàq xaley doon maanaam lu wér péng lay doon moo tax na ngeen ko liggéey bi te partagé ko incha allahu rabbi te gën koo bàyyi xel te li leen di joxe tam ngeen di ko jëfandikoo ndax lu leen ci bëgg dina bëgg ñëpp am tawféex moo tax li leen di jox di leen ko jëfandikoo ala kulli xaal mbokk yi tey da leen a fàggul boo xamante ni bi tam yéene nañ ko ñëpp mooy loo xam ne tam secret dépasse la secret dépasse lu wér peng peng peng peng peng jëlee ko ci kilifa gu mag dafa fekk ni nag yàlla dogal na mënuñu ko jaarale ci pénc mi ndax dafa am lum ñu ci waxoon daa am lum ci waxoon te xam ngeen ni internet dafa doy waar nit mën naa dem ba gis ko wala moom mu dugg ci internet jàkkaarloog moom te boobaa loolee lañ ci waxoon dafay nuru ni war la wala lam ñu waxoon jëfandikoo woon ko loolu moo tax ndax dafa am sartu yi mu ci tegaloon waaye bu fekkonte ni bi yàlla seera na ne day du loola kon dinaa ko dugal ñëpp jariñoo ko waaye nag ala kulli xaal secret boobu mi ngi fi képp koo xam ne bëgg na ko rek am na ñaar am na boo xam ne dañ koy bind saafara wala ñu wax la ko nga bind ko ndax yomb na bu ko defee sax boo xëyee laal say loxo bu dee bopp moom bés bu nekk mën ngaa am junni waaye ña la fekk ngay liggéey moo xam commerçant nga moo xam loo mën a doon waaye moom surne mille mën nga koo am boo xëyee boo amul mille bu subaa dix mille lay ñëw bu subaa bu dix mille ñëwul bu ginnaaw subaa quinze mille lay ñëw en tout cas daal bu lay leer na def ko te si journée bi gisoo cinq mille bu subaa séntul dix mille suba ga boo gisul ginnaaw suba séntul quinze mille te xam ni quinze mille day ñëwandoo mooy yi paase moom secret bu wér péng la am na ci boo xam ne tam wérd la incha allah bu dee secret yooyu bu ku bëgg ñaari bu si nekk ñu ngi koy jàngalee cinq mille bu dee bi ni zikkar cinq mille lañ koy jàngale bu dee bi ni lay wax nga bind ko saafara moom itam cinq mille la las koy jàngalee. lu ci waay bëgg rek bu wootee ci numéro bii di 77 793 94 37 incha allahu rabbi daañu ko ci wax ay leeral jox ko ndax jamono métti na te xam nga ne Sénégal yi ñu ci bari dépasse rek la ñuy daw yàlla xam na ko daw dépasse rek loo am indi sa kër moo tax ni ma ko waxee sànq bu fekkonte ni bii lu ma leen mën a jox la gratuite nii dama leen koy jox wallahi ngeen jëriñoo ko ndax yéene naa leen ko lool moo tax may naa leen ko présenté ku ci am rek incha allah bu wootee ñu wax ko ñu wax ko incha allah leeral la ko waaye nag comme ki la ko jox daf la am lum la wax itam te internet bi mbirum pénc mën naa dox ba yeggaat ci moom loolu rek lañ ci ragal yàlla xam na ko ndax bu ëllëgee boobaa boo fa demee di gëstu mën naa am du la du la ñemeetee jox ndax daan créé de saa samay secret loolu moo tax ala kulli xaal mbokk yi li leen indil mooy xasbuna allahu wa nixmal wakiilu mbokk yi wa man yattaqillaha yajcal lahu maxrajan wa yarsuquhu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbuhu inna allaha baalixan amruhu qad jaala allahu li kulli shay'in qadran képp koo xam ne rek wéeru nga suñu borom jëru ngay ragal dara xasbuna allahu nag mën na lu nekk waxi suñu borom la képp koo xam ne bëgg nga kaaraange ak xiwal waaw kaaraange ak xiwal na nga saxal di zikkar xasbuna allahu wa nihmal wakiilu xasbuna allahu wa nihmal wakiilu 400 450 450 nga njëkkee 50 yi door indi indi 400 yi maanaam nga def juróom fukki yi door indi ñeenti téeméer yi suba ak ngoon wala suba gu nekk cent cinquante lii de képp koo xam ne téye na ko jërul muy ragalati dara ci àdduna lu jugewul ci fa seen borom subhaanahu wa taala wallahi mënul cew dara du pexem doomu aadama du koy wax du koy bind du koy fas du koy xëram amul lenn lu nit man ci moom te di nga dem ba yëg sa xol ne yow mii gëmoo kenn ku dul suñu borom wallahi dafay dolli tawxid di nga yëg nit lu dul suñu borom rek woo ko wallahi kon nag secret baa ngi noonu lu am solo la te dafay yombal ay mbir lool lool lool sax incha allahu rabbi ndax ku wéeru suñu borom rek suñu borom dimbali la incha allah yal na ci suñu borom def barke ala kulli xaal te defal leen tawfiix bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb alquranul karim